comité euh, nous sommes prêts également à ce que nous appelons le président mais on lui demande également à ce que dafa defoon moom si promesses ay promesses des à des responsables ici euh, le premier ministre est revenu également monsieur Amourouba on l'a reçu ici très tardivement Nous devons tamit promesses je me joins à tout le monde ici, au niveau, au sein de la paire, au sein de Bernard Bokoyakar, pour dire, pour dire au président Macky Sall et également au premier ministre Amadouba que nous tenir cette promesse à l'égard de ces responsables. Faut que pas le dernier, mais pas le moindre. C'est pour que nous puissions que nous puissions discuter Miguel, que président Macky que amourba tenir une promesse à l'égard des responsables de de merci auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu nag suñu responsable yi toog ba ma dugg see sama xel sama xol yëpp dafa neex APR a ngi nii démb ak barki démb APR a ngi nii toog ci table bi te ñoo gañeel Macky ba 2012 ba nagani si ñuy gañeel Macky kon nag Macky war na jël gestu nu gestu suñu militant yi yan jigéen ñi yan laay waxal si yan laa fi toogal yan jigéen ñi wax naa ko barki démb Marème Faye ne ko suñu jigéen ñi nee na dañ la soxla wax naa ko ko keroog ba mu taxawee nee naa ko jigéen ñi nee na nga ñëw dañ la soxla parce que def nga ci commune yëpp ba mu des commune Biscuiterie nee na dina ñëw nag promesse loolu laa ko wax nee naa ko bu ma la gisee te defoo loolu dinaa la ko rappelé waat waaw te jigéen ñu ko wax war fa kàlla wallahi azim am lu amul seede neexul ba ma koy wax marem fukki manfaar bi ngi taxaw mi ngi taxaw audience oh, bi wax naa ko ba pare marem nee na dina ko def ndax dama ma laaj lan nga bëgg ma ne ko jigéen ñi laa bëgg ngeen jël leen audience ndax boobu ba ndege ni si bëggunu la gisunu la déggunu la te ñoo ngi lay liggéeyal ay jàmbaar le fi nekk ay liggéeyal fi nekk les liggéeyal

ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf da ngeen war a jërëjëf jërëjëf jërëjëf militant euh. s'il vous plaît monsieur Fadlon lon ñi wax lañ lépp s'il vous plaît suñu jigéen yi nekk ci biti ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen maslawu parce que yàgg ngeen fii di nuyu journaliste yi di wax ne que di fi jaar buy Maître War Aziz Ndiaye moo jeune frère Ismaïla wax nañ li ñu wax lépp li ma bëgg a wax du ma gudd dama ne ñu dégloo s'il vous plaît dehors ngir yàlla li ma bëgg wax mooy constitution Sénégal dafa wax ne que nit ku am fanweeri at ak juróom ba juróom ñaar fukki ak juróom bu